li ma bëgg a wax ci olof du gudd dama koy gàttal parce que ku ne xam na ni réew mi réewu diine la ak foo mënti bokk parce que ñoom ñooy wax ni dëkk bi 95 pour cent yi ay jullit lañ cinq pour cent yi ay catholique lañ donc réew mi réewu diine la fii ku fi juddu ñu tudd la te ku fi génn àdduna ñu jullee la kon naka lañu mën a dundee te ne ñi nga xamante ni nii ñooy suñu guide spirituel bu ñu leen boole ci ni ñuy doxalee dëkk bi d'accord ma ci loolu parce que boo génnee diine ci nit mu wéet moom kese du am lenn loo xamante ne nii dina ko ragale pour def naka sudul noonu diine rek moo mën a tax nit wéet moom kese ne lii duma ko def ndax yàlla ak ma tiim bu fekke nak dañu génnee guide spirituel yi ci ni ñuy doxalee dëkk bi dafa melni dañoo dàq ndax amul dara lu ñuy jàng ci l'école lo xamanteni ne ni mën na jullee mbaa mu jité juma amul té fi ku fi nek gëm nga ni keroog bisi penc dina am motax ci sama wal doxalin ma seet sëriñ Modou Kara Mbacké waxtaan ak mom gis ni suñi gis-gis dafa and ñu fas taxawal coalition fas yéene ci liggéey ndaxte dëkk bi damay wax euh, lu ci bari ke ni ñi nga xamanteni ni ñoñu jité benn mbëbët rek lañ am moy défer dëkk bi ci lañuy xey suba ba ngoon nañu défer dëkk bi waye bo déferé dëkk bi bàyyi nit ñi nit ñi yàq dëkk bi motax dañu melni li tubab di wax Euh, le mythe le de Sisyphe dañuy defar muy yàqu ñuy defaraat ndax dañuy defar dëkk bi bàyyi nit ñi te ku defar dëkk bi bàyyi nit ñi nit ñi yàq dëkk bi waaye boo defaree nit ñi bàyyi dëkk bi nit ñi defaru defar dëkk bi mooy sama gis-gis moo tax ma fas yéene ànd ak sëriñ Modou Kara Mbacke ni ñu fas yéene ci liggéey wasalaam